ndax ñi ngi fi te dégg nañu arab day biral gee ndax ñi ngi fi dégg nañu arab day biral suba ñi ngi fi dégg nañu arab bëccëg nag kenn nekku fi da koy yelu xikma boobu moo waral biral julli guddi yelu julli bëccëg loolu moo ko waral looloo ko waral ah bu ko defee nag gaa ñu nekk li leen ko nag nee na ñooñu nag ahlu suffa nag yonente bi nag ñaan nag saaba yi kenn ku nekk reeral kenn wala ñaar yóbbu kenn reera ndoog moom wala ñaar reera ndoog moom yonente bi reeral li ci des foofu la bàyyi daara cosaanoo kenn ku ci nekk yóbbu kenn daa ñaar daa ñett mu reeral li ci des ñun ñeenti téeméer yi jeex laaj takkee na ñoom mënuñu dar ban doxi duñu voyagé fil arli ci suuf yaa si doon dana leen jottoo jaay lu ci leen réere seen mbir jaay lu ci réere seen mbir la ci jublu ci réere seen xaal waxuñ nit ku réere xam-xam ci réere seen xaal mu defe neex ni yaa way woomal lañu mi ne taabu su ngir fekk duñu feebu bañ a laaj yi taarifum da nga leen xàmmee bi si maam ci seeni mandarga laa yasaluuna duñu laaj naasa nit ñi il asan ci kanjamal laaj nit rek na nga woo teqale ko moom te joxu la waaw dañuy am sutura rek dara ju rafet ñu ñaw ko ñaw mu rafet mbaxana mu jekk dàll yu rafet waaw nuyu la nuyu la nag di waxtu rek te dara dara newu ci jikko ji
neena booy ci taalib mu koy sol mbubu mbate mu rafet sol daal yu rafet ndax mu rafet yóbbu ci sunu parasoor mu ci jox mais boo amee lay saxe booy bu nga woo ko jox ko
ko
fekk na nag laa yasaluuna naasa ilaasan man de loolu mosuma dal benn commerce bu bari xaalis lool man ma néew xaalis lool ma dem fa di ko nuyu ji nag kenn ca bitig bi nag dajante ak muy wàññi xaalisam parce que jikko moom mënuma téye sama jikko ba bugguma ci xaalis xaalis bi moom bëgg naa ci waaw nag am naa ngorog toog rek nag benn xalelam bu tuuti bu toll ci ñeent at daal dem fab ca xaalis ba ñaari junni ñëw jox ma bàyyi bi di ko xool xaleel xamu ci dara moom yoonam yàlla ko yoon bi ma ne ko ah xale bi ko dama jox ñaari jën yi mu ne ah moom ngay sañ bi booye ba mu kii ko rek mu ngant da nga xam rek jël ko mu koy wax naa ko ko ba mu leer nañ ni mun nga jëlal waaye dattoo na dara ban ki loolu yaa ci xaj loolu mun yàllaa ko yónnee moo am xam naa bu génnee ba day wax yeneen nag loolu daal ci ñaari junni
ak niyaawa min taafufi taarifu bisimaam laa yasaluuna naasa ilaa fan wa maa tunfiqoo lépp lu ngeen joxe min xëyrin ci alal fene laa ni ki bir yàlla allimun xam ne bii ci loolu ngeen joxe lasi na ñu nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe am waalum seen alal bi layli ñu ngay joxe ca guddi wa naari ñu ngay joxe ca bëccëg sirran ñu ngay joxe ci lu kenn yëgul wala ne itam ñu ngay joxe ci lu ñu yëg am na ñuy dafa wàccoon ci Seydina Ali am ñu wax ñeneen ñeenti dërëm mu am ñeenti dërëm am def ko noonu laaya ji daal di mën soo la si na yén ko xoona am waalawum bi lay di wan aari siran waala mu ni man rek ko def nag te loolu ajruhum inda rabbihim fa seen borom wala xawfun déetu ragal alayhim wala hum deen ñoom yaxsanoona déet bokkul ak laaya ja man suux jooju man suuxul yi ngay wax ma nga ca saari suuf ya wala am yaxsanoona la si na ñi nga xam ne nag yaakuloona dañuy lekk ribba ribba ndollant dañuy yokk lekk ndollant lu tegewul fenn jox naa la junni boo ma ko dee delloo ñaari junni nga may fay wala ma yokkal la weer yi defal la ko ñaari weer la jox na ñaari junni riba ya riba nasi'a ak riba bi ci des waaw moo di ndollant lu xaraam laa yaquumuuna duñu taxaw ci seeni bàmmeel illaa ndareg naa xam ne kama yaquumuuna kay taxawe la si ka nga xam ne yata xabbatu mërmeel na ko seytaanu seytaane mi neen ma si ko laala moom ket du njindi jinne la saalika loolu googu la laal jooju la wàcc bennoom naka ñoom xaaloo wax nañu ni ñu ngi tere leen riba ñu ni innamaal bayhu kat jënde juróom jaaye juróom benn jënde junni jaaye ñetti junni moog riba yam ndax li ci dolliku nag waaye li ci dolliku dañoo fàtte ni yaa ko liggéey riba nag da nga cee deful dara da nga lekk alal bil baatili ah da nga lekk alal bil baatili ah Abdurahman ibn Awf koy ba ko yonente bi joxee ñeenti dërëm ne ko demal jëndil ma ci xaru tabaski mu dem yaxantoo ko ba jëndil ci boppam xar jëndil ci yonent bi xar dese ñeenti dërëm la lépp ci bénéfice la ko jënd ñëw yonent bi ñaanal ko ba tey naari gannaaw yi dañuy bind Abdurahman ibn Awf seen bitik alal ji kenn xamul nu mu tollaal ci commerce loolu koy di riba ñu ne nag idamal bayu njaay kat njaay mi yonent bi digle kat te naan dagan na ni si riba moog ribaayam ñenn ñun déedéet dañ ni inamal bayu njaay da waaye dagan na njaay day dagan na misli riba ni riba dagane inamal bayu misli riba inamal bayu misli riba yàlla ni déedéet wa axala dagal na ne laaw bur yàlla bay xa njaay ma wa xarama xaraamal na riba riba yàlla daganal na njaay kat waaye araamal na riba faman koo xam ne jaawoo dikkal na ko mawisatun ak waar nag ci njaay ak ci riba min rabbi gu bàyyi ko ci borom fa taxaa mu bàyyi ndollantu lu araam te loo ñeel na ko nag la mu gañe woon te bañ ko daa tan tere maa salafa la wiyoon nag kenn duutu ko ca defal bàkkaar ndax booba kenn tereegu ko te loo ñeel na ko nag maa salafa la wii nag waaye nag wa amru wa mbiram nag ci njëggal ila laay jëm ci yàlla ah la nga gañ moom gañ nga ko ba pare rek waaye nag wa amruhu ilallah wa amruhu ilallah waaye nag ma yeggale waaye nag laa yu du wàcc ka nga xam ne dañ ko laajoon ci riba mu dem di fayeeku ju kooku du ko sañ waaw waxal li ngay wax moo tax mu ne te loo maa salafa sila
kenn ku ne dinaa fàttali yow ñaar ñu di ko def foofu weer dee ku ne am juróom-benn jigéen la ñu fàttali ne ñaar fukki jëm waxoon na leen ko it ñu jël jëm lii daal loolu ba xam loolu
ah waaw ah dégg nga dégg nga da leen di dajale da leen di dajale seen xaalis ku ne ah danaa wax leen que ñu d' accord ci ma ne ñoom d' accord nañ ci waaw
ah mu leen bu ma ko dajalee ba weer dee ah dafa leen di dajaleel xaalis rek kooku day liggéey ah waaw moo tax ma ne kooku day liggéey waaw man koo xam ne kii nag aada ndax li mu def umpul kenn ah dé déglu leen nag li ma laaj lu am solo la ndax lu xew ci jamono bi la waaye tontu lu leer aada dellu na nag ci la te lu dagan la fu lekk ñooñu gaay asaabu naari ñooy waa soora um ñoom xaalidoona way sax lañu fiyaa ci sawara yem aqu yem aqu dana moñoxe yem aqu dana yàq yem aqu dana yàq laahu buur yàlla du ko wàññi riba riba riba bi nga dajale denc ko yàlla da koy wàññi rek toujours toujours toujours yem aqu dana wàññi laahu buur yàlla du ko moñoxe laahu buur yàlla riba mu dana barke ba yooyu bi mu tonool sadaqaati asaka ya def cee yool riba day wàññiku asaka day dolli ko alal gi ñu génnee asaka day dolli ko alal gi ñu dolli riba day wàññiku dañoo safaanoo dama ne alal gi ñu génnee asaka day dolli ko alal gi ñu dolli riba day wàññiku ñoo yem àq la riba wa yurdi sadaqaati wut ko di alal yu bari seen perte li ko jur mooy bañ a dindi asaka moom la alquran wax yam aqulaaw riba wa yurbi sadaqaati waaw rek wallaahu bu dee la laa yuhibu du sopp ku la kafaarin bépp weddikat asimin bi di bakkaaru ina la si ne gaa ñoo xam ne amano gëm nañu waa melu suñu jëfee salaata farata ak sunna waa qaamoo ñu joxe salaata ñu saxal salaata julli saxal julli mooy nga saxal ko comme ni ngay saxale mbaar wutal ko ay jën ak lay tegu ca kaw mooy njàpp naa préparé ba waa qaamoo salaata dégg nga ñu saxal julli nag waa taw te ñu joxe sàkkaata asaka lahum ñeel na leen ajurum seen yool inda rabbihim seen fas seen borom wala xawfun déetu ragal alayhim ci ñoom wala hum deen ñoom yaxsanoon nañu yàq dara yàlla si naa mënoo yéen ñi gëm yàlla am na te sax ca ittaqoo ragal leen laa yàlla wasaroo bàyyi leen maa la nga xam ne baqiyat des na min riba bàyyi leen riba mu dem yoonam in kuntum dem nekk ngeen mu'miniina di dëggal seen gëm yàlla bàyyi leen riba fi in lam tafaloo ndem bàyyiwu leen riba ndem defu leen li ma leen digal fasanoo digg ngeen ak yàlla bi arbin cib xeex yàlla dana xeex ak yéen de ah yàlla dana xeex ak yéen fasanoo bi arbin parce que ñoo laaj iman malik waa ji ni aj naa san pasan jabar ci bu fekkente ni du lekk riba du mooy yées naan sàngara riba moo yees naan sàngara ak ñàkk sama pasam jabar gaa yi na ko ñàkk nga jabar naan sàngara yees mu dem laaj ko Malick maa yi na ko demal fee ñetti fan Malick def gëstu waaja dellu si mu ne ko sa jabar tasul lekk riba moo yees naan sàngara nee na nag dëgg ngeen ak yàlla bi arbin xeex boo xam ne mii laay mi ngi bàyyi ko ci yàlla wa rasul yi ak yonant bi loolu nag moom lañ naan taxdiid xëble yéen tub-tub ngeen tuub ngeen fa lakum ñeen la leen ruusu amwaalikum seen cosaani alal laa tas laa taslam laa taslimoona duñ leen tooñ laa taslimoona duñu tooñ bi siyaadatin wala taslimoona deesul tooñ leen itam laa tuslimoon duñu tooñ di siyaadatin wala tuslimoon deesu leen tooñ it di naqsin ci wàññi wa in kaana nam nekk na muy kaanay kaam borom bor ba su usratin di ko amagul dara nga bëgg koo fayu yàlla nee na fa nasratin waaye muñal ko waay muñal ko ilaa maysiratin ba mu dem ci jàpp ndal ba mu am lu mu la fayee wante saddaxoo boo ko baalee bor ba nag ah nee na lool nag kat moom xayrun moo gën nag lakkum ñel leen in kuntum den nag gën taalamoon na di xam ne looloo gën ah ci sa coobare nag wa taqoo ragal leen yow man bis turjaw na des na delloo leen ila lay ci yàlla su ma topp toofa ñu matalay kul nafsin bépp bakkan maa kasabat la mu fàggu min xayrin wa sharrin wa hum ñoom laa yuslamoon a deesu toñ leen bi naq si asanatin aw siyaadati sayiatin yaa rafinaa am yaa rafinaa ma nuñ yéen ñi gëm yàlla am na ko sax ca gëm-gëm isaa ka dayantum dan leb leen te ngeen taamaltum dan leb leen te ngeen ah bu sëriñ njaay lebalee sëriñ jóob wala sëriñ jóob lebal sëriñ njaay da ngeen a leb leen te isaa ka dayantum bi doy nin ci ab bor ilaajalin mu jëm ab dig mu saman waa ji dalaa lebal ba weer dee wala mu lebal la diirum ñaari weer ne la na nga ma ko indil yàlla nee na na ngeen di defa fàkk tuboofu bind leen ko moo gën dem ba mu yàgg ngeen di werante lii la woon ak laa la woon wala yàkkutum ne bind baynakum seen diggante kaatibun aji bind wooleen ak jàmbur buy bind bil adli jàmbur bu jub bil àq ci dëgg wala yaaba bu bañ nag kaatibun aji bind je na naa lànk du ma leen bindal an yàkkutuba bu mu bindat kama alama woon nag bind ca làng ba ko yàlla xamal kama alama woon nag ko xamale laahu bu yàlla fal yàkkutum ne bind muy taxkiit nee na wal yum lili nasa nasa nag aji bind ja nga xam ne lësi aji bind ja nga xam ne alla yi nekk na ci moom alxaqu dëgg ga moo yore alalam di leble kookee nasa ki nasa kiy bind nasa aji bind ji naka sax naka ni lii la bindal ñaari junni ci bis sàngam bindal diw moo ko leb wala taq na ragal nag kii bind laa bur yàlla rabbahu boromam kéem laa yi na ragal itam ki yor alal gi bu mu joxe junni na ñaari junni laa joxe na waa ji bind ko na neexal la ci silëb wala yam xas bu mu jeccal nin wu ci dëgg gi bu mu ci wàññi dara fa in kaana nem nekk na la si waa ji nga xam ne àll yi nekk na ci moom alxaqu alal bi alxaqu bor bi mooy leble nga xam ne safihan dafa dese aw dayifan wala mu lomtañ ba mënul wax wala mu mag ba mënul wax aw la yastatihu wala atanul an yumila bu mu fitee bu mu waxee waa ji li xew huwa moom li xarasin ngir deful lu waa ji mënul lu na woo ku ko remplacé doomam ju mag doomam ju xam dara fal yum li li ne fit wàllu yoo mu tawali am rek ki nga xam ne moo yor mbiram wala mu amul secrétaire wala mu am doomam wala mu amul jarbaatam bil adli ci jub wastasidu nee na na ngeen sàkkoo seedali sahiiday ni ñaari way seede na ngeen leen seedaloo waa si doo seedaloo leen sahiiday ni ñaari way seede ñu ndi jaalitum ci seeni góor yi nga xam ne dañoo masuur tey ay gor fi leen yàkkoo naa ndem amuleen ci alal ndem amuleen ñaari góor fa rajulun rajulayni ni ñaari góor ndem amuleen ko fa rajulun genn góor doy na wa mar'ataani ak ñaari jigéen caal ñaari jigéen ñi moo remplacé ñaari góor ñi moo remplacé benn góor bi ñaari jigéen ñi moo remplacé benn góor bi ñi mën nag te ña nga xam ne nag sardaw nag gërëm ngeen mi ne suadaayu seeni seede nag waaye boo nee diw doyu ma du ma seede nag kenn du la ko force mi ne suadaay mooy ñaari jigéen ñi li tax ñu koy wut ñu ne sardaw na mi ne suadaa am tàddale bu réeréet seeni xel dafa wàññeeku mu gaaw a fàtte am tàddale benn jigéen bu réeré ne lañ seede woon indéefuma kenn ca ñaari jigéen ñi fatu sàkkira fàttali ko ko beneen jigéen ba ne ko nangam la woon fatu sàkkira fàttali ko indéefuma beneen jigéen ba oxra beneen ba benn jigéen ba ca des fàttali ko ba ca des moo tax mu wut ñaari jigéen ak benn góor waaw yow boobu de daañu bëgg a yemale jigéen ak góor dañuy fon yàlla bind góor yàlla bind jigéen moo ni yemale wu ma leen kenn ku ne xam nga la ne fi yow ah góor ak jigéen yemuñu bokk ñuy bagage ah wala yaaba bu mu bañ soo daa way seedaña isa ma doo ndem wooyes na leen yaa ko seede woon kaay diw kat nee na joxuma ko woon lii bul bañ wala tas amoo bu ñu yokkati en tant que bu ñu ko bindat mbind mér bu leen ko tayyi na ngeen bind saxiiran lu tuuti aw kabiran wala lu rëy buy dërëm bind leen buy junni bind leen saalikum mbind moomule aqsatu moo gën a jub inda laay fa yàlla waq aqsam moo gën a ju aqsatu moo gën a jub waqafam moo gën a dëgërit li su adaay ñeel way seede ñi ah bind ba noppi seede teg ca waaw bu ko defee taw na ba noppi lay teg ca moo gën a dëgër moo tax yàlla ne aqsatu wa aqwamu li sahaadati ñeel seede sa aqwamu li sahaadati ñeel seede sa nee na wa àdduna moo gën a jege ñit an laa tartaboo maanaa an tartaboo an laa tartaboo bu ngeen sikkalante nga sikkal ma ma sikkal la ma ni lii la nga ni waxoo dëgg du loolu lii la ilaa an takkono ndarek boog see mbind mi ak seede si ndarek mu nekk loo xam ne ndarek nekk na tijaaratan bi am marchandise agaratan mu teew ca marché ba lii dama koy jaay loo koy jaay nangam fay naa la nangam nangu naa andi fay ma kooku nag aajowul yooyu nag ah aajowu ko nag tuddiiroonaha yoo xam ne da ngeen koy wëndeelante ci seen bopp bay na comme seen diggante da ngeen koy wëndeelante ca marché ba marché caamin wala buy mbëtt wala lew na tuddiiroonaha bay na comme te lay sa ginnaaw déeti bàkkaar aleykum ci yéen an laa takk tubuha ak laa nga fi def ngeen bañ koo bind lool yi wa asido mooy gerte marchandise di ko jaay seedaloo leen isaa tabbaayaxatum nag ndem nag da ngeen a jaayante lii nag lu mag la lu ngeen jaayante ñu ko jaayee kër wala leneen leneen leneen gànjar daal kii bu ngeen bu ngeen jaayantee nag na ngeen wut seede wala yu daara bu lor kaatibun aji bind wala sayidun ak kii seede wit bu mu lor wayn tafaloo ndeen def ngeen maana aytum ndeen defu leen maana aytum la ci jublu ndeen defu leen liñ leen di tere fa inna woon ni ko moom yàlla fa inna woon ni ko moom bañ gee def su sooxun bëtt diine la waa naa masalan wayn tafaloon ndeen def ngeen maana aytum li ma leen di tere li ma ni bind leen ko ngeen bañ koo bind li ma ni seede leen ngeen bañ koo def ngeen def li ma leen di tere man yàlla fa innahu def googu fusuuqun bëtt diine la fusuuqun bikum ci yéen wa taqoo ragal leen laa yàlla ci yëpp a tey fiq rek la yor wa yaalimukum mu xamal leen laaw bur yàlla wallaahu bur yàlla alimun xam na bi kulli seen ci lépp lëf waaw yaa lisina amanoon isaa tadayantum bi daynin ilaa ajalin musamman faktubuuhu léegi nag dañuy tukki amuñu dundukaay amuñu ko mën a bind te bëgg na noo leb leen bëgg na noo leb leen te am na ku lot ku bëgg a leb ku lottul te amuñu kuy bind amuñu dundukaay yàlla ne woon kuntum dem nekk ngeen allah safarin musaafirina ngeen di ay musaafir allah safarin tooyaas léegi da ngeen di tukki walam tajidoo te amuleen kaatiban aji bind farihaanum léegi nag dees na nangu foofa tayle mun naa laa lebal fukki junni waaye da nga may tayle nangam loo ciy teg mu ne maa ci tayle lii mu wuutu mbind ba tayle nag dagal na ci lu dul tukki sunna daganal na ko ci bu ngeen nekkee ci kër ga farihaanum farihaanum tayle kullu nafsin bima kasabat rahinatun si daa ji maay nee na ca xutba nga li anna raxaa inna kat xalixat inda sayatin tayle yowel na boo taylee ba pare jël yoo ko nag la nga fa tegoon da nga koy ñàkk donte ëpp na lañ la joxoon kullu nafsin bima kasabat nag rahinatun kullu nafsin bima kasabat rahinatun ilaa ñu naan mun li anna rahaa ina xat xale xat inda saati ah tay la yow yel na ah waaw mu ne riba ak haram ak riba
déggoon li muy wax de nee na day am ku doon laaj ñu def arab ak riba bi ñu defal.
ah
Riba
xaraam da mooy capital bi mooy tur bu mag bi lépp ci moom la ñu bisi alxamru umul xabaayis naan sangaraat def lu bon ak riba moom ci alal la jëm waaye xaraam na ismaani mutaraadifaani sañ nga wax ne riba xaraam na lu xaraam it sañ nga koy tuddee riba kenn ko ci ne mën ngaa tudd sa turu morom loolu daal moom lañ ci gis moom la ma bëggoon a laaj.
waaw
moo di tay la ñu wutal ko dat boo xam ne bii bu ko àggee boo dikkut da ngay ñàkk ndax loolu lislaam moom dëggañu ko ah lislaam a ko wax de lislaam a ko wax de
xam nga dafa am taala yooyu da nga ci teg sa yëpp rek weer yu ren weer yu déen boo ko andee nag parce que waaw dañu ne limité wul dañu ne limité wul tay la ni ngeen ko waxee rek ni ngeen ko waxee rek gannaaw da ko fee teg rek ne ko weer wi den weer wi déwén dinaa ko jël si waaja nangul la ko ah loolu boo ñë ba ba ngay ñëw rek kenn du ko jaay waaye bu fekkente ne nag da nga ko ne nag bu weer dee moo tax waa ji jox la lim la jox ndax yaa ko ne bu weer dee bu weer dee te ñëwloo am njaay la day wel dégg nga bu baax day waaw am njaay la bu weer dee te ñëwoo am njaay la loolu la bëri bëri. bu ñu daal daal la ñu wax sama jigéen jotee ak ñu dem taay.
waaw boo ko mënee muñal nag ne ko sa tay la bi kat weer wi dee na moom nga waxoon waaye nag maa ngi lay muñal waaye bu beneen weer dee te ñëwoo kat da ngay ñàkk loolu nag moo gën loolu day loolu islam wax nee na waaw mu ngoog fa nasaratin ilaa may suratin nee na fa in amina ndem wóolu na baadukum lenn ci yéen ñi am di leble baalan yéen ak ak lenn ci yéen ñi ñàkk di leb baalukum ñi am di leble lenn ci yéen ñi am di leble baalan lenn ci ñi ñàkk di leb nga xam ni ñi am di leb di leble wóolu nañu ñi ñàkk di leb mooy fa in amina baadukum baalan su amina baadukum baalan mu ngeen ci teg fal yu addi mu ngoog mu ngoog dangaa leb dangaa tayle wala tayle woo li nga doon laajangu fal yu addi na joxe alxuraan du bàyyi dara la fii ki nga xam ne ootu ñu ne wóoloo seen na ko dañ koo wóolu woon ba lebal ko amaana ko foo bor duñ ko lebaloon naka joxe fal yu addi la si ootu ñu ne amaana ko foo ah wëllëre la ki la wóolu ki la wóolu ba lebal la war nga koo wóolu ba xam ne lim lay fayeeku moom nga yor fal yu wóodu la si ootu mi na amaanata foo na joxe ki nga xam ne wóolu woon nañ ko ba lebal ko amaanata yoo bor biñ ko joxoon wala ya tàq na ragal laa yàlla nag raboo boromam ci bañ gee joxe na ko joxe dangaa leboon waaye fayal nag wala tàkktumoo bu leen nëbb saadata seede isaa doyitum ndem woyes na den waman yàkktumaa ku ko nëbb fay noo ni ki moom ci nëbb seede aasimun bàkkaar na xal boo xolam ba dañ dañ koo yen ci xol waaye jëmm jëpp am bàkkaar waaye xol moom gannaaw mooy président ci moom lañ koy yen xol ba déggoo boo fi amee sa xaleel wala sa surga yónni ko na ko gaawal muy def gonge gonge lànk bañ a daw nga ne ko dawal mu lànk di yàgg ca lool ñu ne danga ko noonu sa xol bu bon waaye tànk yi kay doon dox ah ah sa xol bu bon
ñu commandé tànk yi.
waaw moo ko commandé loolu daal moo tax daan koy gën
moo tax mu ne aasimun xal boo moo tax xol doy waar ñu ci yàlla yi di ko tarbiya wallaahu bur yàlla alimun xam ne bi maa taamaloona bi maa taamaloona aha su baaxee lépp baax bu bonee lépp bon moom xol bu yéwénalee lépp yéwén bu boneelee lépp bon alimun lillaay ñeel na yàlla maa bi samawaat la ci asamaan yow maa fi lalee li ci suuf yéen tub doon den feeñal ngeen maa fi anfusikum li ci seen bopp li ngeen di xalaat ak li ngeen di dogu aw tux boobu la ngeen nëbb ko moo yem ci yàlla yuwaasibkum yàlla dana leen réglé dana leen ko solo dana leen ko solo laaw bur yàlla yowmal qiyaam wa yaxfir lu mu jéggal nag li man ñeel koo xam ne saa wu neex na ko wa yusibu mu bugal nag man koo xam ne saa wu neex na ko ba laaw bur yàlla xadirun mën na ala kulli seen ci lépp lu mu doon amana gëm na amana dëgal na amana dëgal na rasulu sayidna muhammad dinaa ci la nga xam ne um si la wàccees na ko illi ci moom yonent bi min rabbi yi mu bàyyi ko ci boromam bi alquran wal muminuuna ci la ataf jullit ñi ñoom ñëpp kullun ñoom ñëpp ci jullit ñi amana dëgal na jullit yi moom dëgal na benn jullit bu nekk dëgal na billaay ci yàlla wa malaaykat yi mu dëgal malaayka yi wa kutub yi mu dëgal téere yi wa rusul yi mu dëgal ñu ñu yónni ñi laa nu farriqu du nu teqalee bayna ahadin diggante kenn ñun rusul yi ci ñi ñu yónni woon waaw duñ teqalee kenn ak kenn waa xaale ñu nga naan jullit ña sàmmi naa dégg nanu waa tànnaa topp nanu dégg nanu topp nanu xofraanaka woonaa sa njéggal yow yàlla yaa rabanaa yow sa rob sunu wal masiru mujj rafet ilayka jëm na ci yow ku la doon wéetal laa yukallifu toggul laahu bu dee la nafsan bakkan benn bakkan ilaa wusaa ndarek la mu mën ndareet ci ak yaatoom yàlla lim tege ku nekk mën na ko kenn ku nekk lam la teg mën nga ko ci diini laxaa ñeel na bakkan bi maa kasabat la mu fàggu ci yiw moo ko defal boppam kenn yóbbeelu ko dara ba tax mu def ko ci aw yiw laxaa maa kasabat bakkan bee jékki-jékki rek dafa yiw waaye nag waa laha wàkk na ko nag war na ci kawam maak kasabat lañ ko fàggul ci xay lañu ko yóbbe laha maa kasabat loolu moo ko defal boppam waaye nag waa laha nag mak maa kasabat lañu ko defal seytaane ko def la ko seytaane defal la ko seytaane yóbbe ah moo tax mu ne maa kasabat ne maa kasabat indi lii waaw la ñu ko yóbbee wàq na ko ah kii da la kii danga koo war aw yiw warukaay la boo war aw xay nag dalaa war ah man amila saalihan fali nafsihi wa man asaa dañ ko waa ne jaru ko woon man amila saalihan fali nafsihi wa man asaa li ci topp moom jaru ko nga xam ne baaxul fa alayha wàkk na ko kii da nga koo war kii da laa war man amila saalihan fali nafsi wa man asaa fa alayha moo kii ñëwoon laa maa kasabat wa alayha maa kasabat ñu ne serri yaa rabanaa yow borom sunu laa tuwaaqiznaa bul nu jàppe bul nu jàppe inna si naa bu nu fàttee yàlla ne bu ngeen fàttee baal naa leen mu ne awaqatee naa bu nu juumee mu ne bu ngeen juumee baal naa leen bu mu fàttee bu mu juumee yaa rabanaa yow borom sunu lépp yonent bi ko ñaanal guddug rañaan nga wala tajal bul def isran aw diis alay naa ci sunu kaw woo xam ne bii attanunu ko kaa ma amal ko naka nga ko yone woon alal la ci gaañ nga xam ne ñun xam li naa jëkkoon nañu bu seen bubb taqee sebe da nga koy dagg boo defee bàkkaar kenn da nga ko mën a tuube ñun nag fu nu neex tuube alal la si ne min xam li naa muy jur bànni israila yàlla ni defal naa leen ko ak asaka génne ñeenteelu alal dañ daan def seen alal benn ñaar ñett ñeent nga joxe ñeenteel ba ñun fukkeel la ñuy génnee yàlla ne defal naa leen ko yaa rabbana yow borom sunu wala tahmilna bul nu yow nañ ko doon yi ñaanal maa loo xam ne laa taaxata déet kattan la naa ñeen ñu biyaa ca loolu ci taklif yàlla ne nangu naa defal naa leen ko du ma leen yem lu ngeen attandul mu ni waxtu yàlla yàlla na nga nu jàmmal yàlla na nga nu jéggal mooy ko def bàkkaar ñu war koo duma jéggal ko wala ñu war koo rey jéggal ko fa man usiyaloo min axiifati bawon mooy njéggal xam naa yàlla ni jéggal naa leen jàmmal naa leen kon jéggal naa leen seeni bàkkaar ñi nga xam ne dañoo tuub ba yeyoom njëggal jëggal naa leen ko ñi tuubul lànk ñoom itam danaa leen yërëm yërëm naa leen moo tax Seydou Laaji Malick wax way wu kiimaan ixfir li ixfir li ummatihi warxam bi ummatihi wasturluha laha wajburan haa rabbi yàllaahu ixfir nee na yàlla na nga jéggal li ummati ixfir li warxam bi yàlla na nga jéggal li ummati ñi ñaanu njëggal ba jagoo ko am laamu milk xam ne dañoo jagoo ak njëggal Seydi Aji Maay ne yal na yal na nga leen jëggal mu ne waram yal na nga far yërëm sax bi umati yi xeet wét ñi ko yooyowul mooy ixfir bi ixfir li warxam bi laaya jaa ngi nii laaya jaa ngi waxtu an naa waxtir la naa war xam naa ante yow yàlla mawlaana yaay sunu sang yaa yore sunuy mbir kon sur naa yàlla nag nu dimbali ala xaw ma ci nit kaafiriina saar wi lu mu ko mujjantale saar wi dafa andi lu bari saar wi lu mu andi lépp mu ne su koo lim ci ay atte moom baqar xam ngeen ni mu andee koor andi na koor ak i atteem andi medd indi umra indi aj makka loolu lépp saar wi indi na ko indi aj makka indi itam ñi nga xam ne dañ daan dëdd seeni jabar ci ngiñ indi passé ci boppam na muy daga nekk nañ koy dellu toog yépp saa yu indi na ko indi maye jabar indi labat jabar indi yedda loolu lépp saa yu indi yedda loolu lépp saar wi ci boppam indi na ko indi asaka indi lépp bon indi na lépp daal ah indi sàngara indi na lépp indi carte lépp indi na ko ah indi tay la indi jaay indi tay la indi njaay ah indi bor tay bor indi bor man def naa lim bàyyi bariwul de. alif lam mim allahu alam bi muradi allahu buur yàlla laay laa déet benn buur moo tax si maam Omar keroog ba mu ko mokkalee seet la def rey na fukki nag ba mokkalee baqara ba mokkalee baqara rey na fukki nag waaw xam nga mokkal alxuraan lépp yeex na arab yi yeex na faa am yow mokkal li kii mokkal li kii mokkal li waaye mokkal alxuraan lépp mën ko tàmbalee ca faatiha ba naas yeex na faa am am na fa léegi nag ndax ndax seen itte la seen itte la seen itte la ndax ku ko fa am da ngay am sol fii nag ko la fi mën kenn du yéen ni mën nga ko kenn du yéen ni wattu nga alxuraan moom la ñu gën a fonk ah Omar Omar Diallo moo moo ko laa ilaha illa huwa déet benn buur illaa wonde rek moom alaa yu mooy aji dund yaa xayoomu mooy saxaakan ba nasala wàccee na alayka ci alkitaaba téere alquran bi làq ci dëgg musaddiqan muy aji dëggal li ma bayna yadday la ci kanamam la ko jëkkoon a wàcc li ma bayna yadday la ne ci kanamam mooy la ko jëkk a dem la ko jëkk a génn mooy tawreet ak injiil la génnoon xablahu mooy li ci kanamam li ma bayna yadday li wàcc ci kanamu alquran jëkk koo wàcc wa ansala mu wàccee tawreet ak tawreet wa injiil ak injiil min xablu ci la jëkk alquran huddan muy aju jubale haadina min a dalalati ci réer linnaasi ñeel nit ñi wante la mu wàccee furqaana li teqalee dëgg ak fen muy alquran ina les ne niki gaaña nga xam ne kafaroo weddi nañu dayati lay ci alquran yàlla gi lahum ñenn leen asaabum bugal sadidun gu tar wallahu bur yàlla ay sun aji not la soo intiqaamin boroom ak mbugal la boroom ak fa gaañu ne boroom ak fay la man déet boroom ak mbugal la ina laa ni ki buur yàlla laa yaxfa du nëbbu seyun dara àll ci moom dara nëbbuwul ci moom fi larlu ci adduna wala fi sànnaay du jeege ni asamaan am nekkul lu nëbbu ci suuf amul lu nëbbu ci asamaan ci saaru nam ne mu ne wama min xaayibatin fi lar la dara nëbbuwul foo moom yàlla la fi mooy ki nga xam ne yu sawirukum moo leen meral melal fi lar aani ci seen biiri ndey ci butitu njur ya kay fa yasaaw na ko neex na ko neex na ko neex na ko neex maasa arakabat bu ko neexee muy góor bu ko neexee muy jigéen bu ko neexee mu xees bu la neexee nga ñuul moo tax xees bi nga xees doo ci am bakkaar ñuul bi nga ñuul it doo ci am bakkaar ndax yàllaa ko def waaw wala ñoom ñoom ñoom ñoo fekk si naas yëpp ñu di ko laaj xeetal.
waaw.
dara aay bi la tontoo.
waaw ne wala si yusawirukum fil arhami. yow nga ne usawiru nafsi kay ma kayfa asa.
waaw ah ma ngoog tontu na de laa laa de benn bur ilaa wonde rek moom alxaysu mooy aji not gi ak kii mooy aji ati dëgg ko moom la ci mooy nga xam ne an sala wàccee na ci kaaba téere ba aleyka ci yow min wu tukkee na ci téere bi ayatin ay kiimaan moo kamaatin ay laaya yoo xam ne yi dafay atte mel ne liñ doon wax koor ak aji màkka yu demee noonu yu leer hun na ñoom umul kitaabi aha ñooy ndeyu téere bi waaye nag wa oxor am na yeneen nag yeneen i laay yoo xam ne mutasaabihatun dafa nuroo liif laam raa yeeg liif laam miim yeeg xaamim yeeg taatsin yeeg yooyu nee na yooyu nga xam ne nag dafa nuroo faamaa la seen daal gaa ñu nga xam ne ba xuloo du nekk na ci seen xol seyxun jeng xannil aq dayte boo na la ñu topp ma tasaabaha la nuroo la nuroo liif laam miim ñaan liif gi allahu laag laam gi lattib laag miim gi nangam ki nangam déedéet fama la si ne fi quloo bin seen allahu ahlam bi muraadihi waaye te doonga na ñu topp ma tasaaba lu nuroo min hu jiraa yooyu ibtixaa fitna te ñuy sàkku fitna wa ibtixaa taawili ak di sa ibtixaa a taawili ak di ko sàkkoo taawil te wa maa yaxlamu déet di xam taawila wa taawilu liif laam miim liif laam miim sàkk Abdoulaye si Dabaax de nee na woon xam naa saat wal quraan yi ñu ne ko foog a xam nga muy lawil maafoos moom la Seydi Hadji Malick Sy Hadji Abdoul Aziz nee na saat mooy sallallahu alayhi wa sallam ndax yaasin mooy tur yonent moo tax saat topp ci yaasin yaasin di tur yonent nga tudd yonent saat nga andi sallallahu alayhi wa sallam nee na wa yaasinaa di romb saat bi fukki kilomètre ak ñaar nee na moo ko gis te lawul naa ko ah Abdoulaye si Dabakh ibtixaal fitnati wa ibtixaa taawili wa maa ya'lamu taawilahu illa Allah kenn xamul taawilam ku dul Allah wahdahu moom dong waaye wa raasiqoona way sax ña ci xam-xam way sax ña fil ilmi ci xam-xam muy mubtad ak xabar ñoom day neeñu ñun de xamuñu ko waaye yàqooloo na ña nga naan amana gëm nañu bii ci lislaam nii nag kaat si nag lislaam ree ak xaamim gëm nañ ko kullun ku mu ci laay yi nga xam ne dafa indi atte yu leer ñu xam ko ak yi nuroo ku mu ci ñoom ñaar li mu xam ak li mu xamul yépp xam na ni min indi rabbinaa ma nga bàyyi ko ba suñu borom wa maa yasakkaru déet di waaru illaa ulul albaab nga rek borom xel yu sorog ya yaa rabanaa ñu ngal suñu borom laa tasix yàlla boo dëgëral xuloobanaa suñuy xol baada is haddaytanaa gannaaw ba nga nu jubalee wasab yàlla na nga may lanaa ñeel nu raamatan yërmande min ladun ko fi yow xil mu la danee yàlla na nga nu ko may moo tax foo ko fekk min lay jare min lay jàggatee min rek ci ladun ko kenn du ko jàng aha kenn du ko jàng min ladun ko rek bi ladun ko kenn du ko jàng waa ab la naan min ladun ko xil mu la dan yee mooy xam-xam bu bàyyi ko ci yàlla direct ñëw ci jaam xil mu la dan yi mubasharatan nag mubasharatan nag min ladun ko rahmatan yërmande innaka naka yow anta yow wahaabu